ziar ñëpp di ziar ñëpp ñu teew ci bis bi rek muy bisu màgg di bisu sunu maam Mbéthio Fall jàmbaari Sëñ baa jàmbaari Cheikh ci jàmbaari Cheikh Ibra Sakor Fall ji ñu toog euh, benn soxna ci soxnaay mu tudd sunu maam Dior Fall nekkoon ak moom doon dund ak moom ñu bëgg laaj rek nan la doon dundee ak njabootam ak Sëñ Abdou Sakor rek ci kër Cheikh Ibrahima ji waaw loolu lañ bëggoon ci ay leeral yu bari. ñoo ngi ñaan nag ci kàttanug yàlla. yéen ñi di sët yi ak doom yi ak sëtaat yi yéene ji ngeen am ci seen maam janga xam ne moo jar a defal yal na leen yàlla may fan gudd ak fekkee tal ko ba ngeen yeggale ko seen sago di ñaan lépp lu ngeen ci yéene ci lu baax it na leen ko yàlla yeggaleen di ñaan nag yéen ñi nga xam ne yéen ay doom yi ak sët yi ngeen sol nag seen dàllu maam ak seen lu baay seen maam Sayer Fall ak seen baay Sayer Fall kat amutan dara lépp sëñ Abdou Sakkour Fall la bu juree muy góor mu tuddee doomam bu juree muy jigéen mu tuddee doomam bu béyee bu mbéy ma ñoree mu jox sëñ Abdou Sakkour léppam lu mu man am rek sëñ Abdou ba ci kër gi nu ne tey sax danoon da koy joxe sa maam Mor Fall ko nag sayer ba fi kër gi ëllëg ki si biir sax njaboot buñ la gisul ne fa waaye kër gi sax da koo joxe woon ne duma bàyyi dara sama ginnaaw ndax lu ma am rek sëñ Abdou kër laa ko bëgg a eh, jox dajeeg moom yombal xayaam fi wutuma fi dara loole nag la mas di dund ak moom lu mu masaa am laa la wax rek moom la ko jox nu di ko ñaanal nag fan mu gudd ak fekk ak tal ko te sas leen mu sas leen nag yéen doom yi ak sët ndax kat jaloore june nag def na ko ci kër Sëñ Abdou Sakkour mu masaa di ñëw bu dóoree ñaar ngi meñ nga rek mën a ah, sama dof baa ngi noonu ñëw de waaw bu ñëwee dina ko jox dina fa def loo xam ne lii képp ku di taalibe rek doo ko def ba mu ràññi ko woon loolu da leen daan bu leen ma tëjul Sayer Fall Sayer Fall jël si wut fi man rut ak ñaan dal may indil lu mu am rek man la koy jox doomi góor yi doomi jigéen dugub ji mu ko mujj a bayal béyal aluki nu jóge fa muy toxal moom mu toxal ko aluki Touba Linguère gennu ne ba mu béyee dugub ja ba mu ñor dafa ñëw sa Abdou Sakko na ko dugub ji de yow laa ko jox sëñ Abdou Sakko na ko dugub ji de Sayer sëñ Abdou laat laa koy jox sëñ Abdou Sakor demal boppam ba ca sëñ Abdou mu ne ko sama taalibe bañ wax Sayar Fall dina maa bayal dugub joo xam ne ca aalu ki lu ko bojj ak ko indi mooy doon jafe-jafe ba sëñ Abdou Lahat def communiqué Saalum gépp mu ne képp ku di taalibe Sëriñ rek na dem aalu ki ca kër Sayar Fall dugub jañ ma fa jox ngeen ne ca liggéey bi ba asamaan di seeti àll bi foo seen oto yi sareet yi góor ñi ñii ci gën yi ñii ci kuri janj yi ñu béy ko ba mu yegg ñu sol ko ci camion indi gaare ci buntu kër sëñ Abdou gi gii sëñ Abdou Sakkoor ànd ak moom ba ca sëñ du Laat mu jox ko ko téere xànjar boobu nga gis mu daan ko takk fii téere boobee sëñ Abdou Laat ko bind mu di bataaxal boo xam ne da ko ko ñaanale sant ko ca mu ne téere bi dama ko ew lu mooy téere boobu dekkan ci téere yéem yi muy foto woon yi waaw muy jëmm joo xam ne ji am na benn taalibeem bu ñuy wax Seex Gay nekkan ca daara ja yor daaraam bi Baye Fall gaañoo ba bis ba jël si mu ñëw fekk ma fii ci kër gi mu ne ma yaay joor ma ne ko Fall mu ne ma ñàkk ngeen jëmm joo xam ne day dañu ko amante xamuñu ko mu ne ma man nag Baye Seer dama ko joxoon cër boo xam ne kenn joxu ko ko te damaa fekke ci moom jalooro yoo xam ne moo tax ma jox ko ko mu ne ma daa jóge Mbàkke booba wëtiir lañuy jël boo jógee Mbàkke ñëw Daaru Fall fekk fa sëñ Abdou Sakkour nee na bi ko sëñ Abdou Sakkoor Sy ne bàyyi seer na cëpp nee na boobu mi ngi sor grand mbubb boo xam ne bi ñuy wax ko bu dugub moo mooy bii ñuy def yume léegi ak baxa nee na ñu ngi ko gome ba mu taxaw sëñ nee na mu ne cëpp bi mu ne cëpp sëñ Abdou Sakkoor dana ñokkete piliyaan bi jóg dajeeg moom daal kon Sayer Fall su mil li nga sol jox ma nee na bàyyi seer daal na futteet grand bi sànni ko xam nga boo turki dara lañ koy jiitale nu sumbet turki dara bi sànni ko ba desee maa bi neen sëñ Abdou Sakkoor daal ne su met garamb bi mu solo turki dara bi sëñ Abdou Sakkoor solo ca xay ga ca Daaru Faal jox ko ko na ko sarool Cheikh Gaye ne maa ngi toog rek nee na mu nu toog nee na nu toog waaye mu ne ma Cheikh Gaye ma ne ko faal mu ne ma xanaa waaru nga ma ne ko man kay faal jaaxle na mu ne ma dangaa xamul ne sayar faal u tànkam bi ba ci digg boppam bi lépp Abdou Sakkoor faal la nee na ne ko ma def faal xaw ma koon mu ne ma dangaa xamul ne Abdou Sakkoor Fall li ci weewu tànkam yi ba ci digg boppam bi Sayar Fall la Cheikh Gaye ma ko wax fii ci sa juróom-ñetti fa ne maam ci kër gi te seex fay Cheikh Cheikh Gaye ku ne xam na ko kii taxaw xam na ko muy jëmm joo xam ne du waxaantu nitug yàlla la ko ñëpp teg mu ne ma keroog nag laa jox Baye Sayar Fall bu ma jox sëñ Abdou Sakkoor rek keroog laa ko jox Baye Sayar muy jëmm joo xam ne lépp lu mu am dama ne lépp lu mu am du fos du xaalis du mbay du dara léppam rek sëñ Abdou Sakkoor la ko jébbal lépp léppam sëñ Abdou Sakkoor la ko jox ba ci sama Mor Talla Fall ñii ndey xadi sa Fall sax la la mujjee tudd sama waa kër doom ju ma am bu ñëwee bu ko ne naa jàll dem leen ca moom mooy joxe tur de tur woo xam ne sa Mourtala Fall mii fii lañ ko tudde fii ngeen fii ñu teg mat laa bi Talla Fall mii fii lañ ko tudde mu yónnee nañ ko tuddee sëñ Mourtala ñu tuddee ko sëñ Mourtala taala mii judd mu ne nañ ko tuddee sëñ Taala Faal ndey Xadi mii juddu mu nañ ko tuddee Xadi Jenn yaayu sëñ Tala mooy sëñ Tala mii ko yor tey yaayam lañ tuddee soxna Xadi Jenn ay doomam ñëpp ñii sëñ Tala ñii sëñ Bada ñii sëñ Fàllu ñii sëñ eh, Tafa doomam yëpp sëñ du Sakkoor la leen tuddee muy góor ñi muy jigéen ñi lépp moom daal amutan daraam loo xam ne lii du sëñ Abdou Sakkoor ko moom. bu ma saa béy nii de naa mbay mi de bu leen ci yaakaar dara doomam gerte sax bu ma sañeen kenn du ko ci yéey da ko koy jox lépp ak ngam ni mbéyam tuubaali ah, ngir gi ma la wax béy na fa mbéy moo xam ne daanaka koppe ba ba gerteem demee daanaka koppe ba daa toj ndax gerte gu bari Baye Cheikh Ndiaye bu Touba Fall na dara dareet ñuy séentu màggal mu génn am bloc ba jox ko na ko sëñ bee la ko jox mu daal tippi nii a bu jàng ah sama sang bu baax de téeméeri junni la ma laaj ci màggal gi Baye Cheikh Ndiaye la wañu téeméeri junni jox ko at mooma mu indi mu indi ko fii ak màggal daal na li ci des nag munu ma bu ma saa rey nagam yu fii togg ko it dañ koy togg ba mu ñoon ñu def ko ci booli yenu ko di si kër ba këram nga ñu yenn ko fa moom daal dara am loo xam ne li mas na koo am dara am loo xam ne ni mas na koo am dencal ko ëllëg lu dul sëñ Abdou Sakkoor ma ko koy dencal yombal xëyam amu ko woon lépp lu mu sonn nag ci kër sëñ Abdou Sakkoor gi yàlla na ko yàlla fay fa mu tëdd ca barsàq fay ko ko nag ci njabootum gii ci kàttanug yàlla yàlla may ko nag yax yu seddu guy ndax kat dama jëleele doom waaye nun ñii soxnaam mu yoroon nu rek buñ ci nekkee sayara koy roon sax buñ lay nuyu dañuy raam wallaahi bu ñuy nuyu nuyu dañu nuy jox cër bu mat sëkk boo xam ne yàllaa ko ko joxoon nag mayam waaw waxu damaa jëlee la doomam yi nag te loolu sant la ñun daal noo sant bu baax di ko ñaana rek bisam bii nag yàlla na ko suñu borom yàlla fulandeel ba mu toll ni màggal gi. waaye sama baay dafa lebal ku mat lebal muy Cheikh Abdou Sakor ndax Cheikh Abdou Sakor moo nekk nit koo xam ne ku ko lebal ker mu fay la guddi sama baay rëccuwul mu ànd ak Cheikh Abdou ndax dafa bàyyi lépp sama dafa bàyyi juddoom bàyyi dara jaam ñëw nekk taalibe Cheikh Abdou Sakor. mësta dencal dara lu mu mës a am Cheikh Abdou Sakor la ko jox ku mas doom ju mu mës a am Cheikh Abdou Sakor la ko tudde bu ko nit xeebee Cheikh Abdou Sakor bëggum bëgg Seera Fall nga ko xeebe te Seera Fall moo nekk nit koo xam ne moo jarale ba ñun de réccuwuñ lu ñu suñu bàyyi dugale biir kër Seera Fall ndax Seera Fall de gisuñu ci dellu ginnaaw ci ànd gi suñu bàyyi àndoon moom. amuñu dara loo xam ne ñun njobootu Saér Fall réccu nañ ko ci ànd ànd ak njobootu Cheikh Abdou Sakor ndax bu guddee moom la ñuy gis bu subaa ñu gis leen dañ ne ragal féete day xañ a wërsëg waaye sama baay de bëgg na Cheikh du Sakor bëgg goo xam ne ay doomam koo ubbi xolom Cheikh Abdou Sakor nga cey de xëy na nag ay gone lañ amuñu mënuñu waaye lépp luñ ma am rek yéene nañ ko def ko biir kër Cheikh Abdou Sakor ni ko suñu baay daan def rawatina góor a mi nga xam ne moo di suñu taaw lépp moom la. moom Fall moo daan def yëkkati àddiyaam di ko joxe biir kër Cheikh Abdou Sakor ba ci man mi nga xam ne maay caat mi sax sama àddiyee da ko daan dugal bu ñu kee mu ne lu ma joxe biir kër Cheikh Abdou Sakor joxe ma ko ngir man de maak samay rakk ñoo ko joxe. bis bii ñu taxaw góor ko fi njëkk a taxawal defal ko sama baay jaam nag dañ ne ak pexe yàlla ak dogalam waaye de liñ koy ñaanal Fall Ndiaga mu nekk lépp lu mu bëgg yàlla na ko suñ borom la yàlla na ko seex borom suñ borom yombalal. ñu ngi sant ñëpp di sant nag Omar Seck baay Seyerum Saali bokk Baye Seyerum ñoom ñëpp rawatina ba Gueye mi ñun tubaalingeer laa ko daan fekk waaye Omar Seck de nii mu siggile suñu baay yàlla na ko suñu borom siggil ndax de dañ ne gaynde de gaynde rek la mën a jur gaynde du jur muus xëy na baay Seyer de lim def ci biir kër Seera Fall du yàlla du ko neenal bu du doomam di sëtam Omar Seck wane na ne foo xam ne moom ku Seyer Fall réere woon mbir Seyer Fall rek. Omar Seck fësalaat na fa Baye Sayer Fall Omar nag dañ koy bàyyeeg yàlla ak yonent bi ak Baye Sayerum Saadi bi ni ñu yëkkatee Baye Sayer te Baye Sayer sax da ay mbiram mën naa diib de waaye du mës a réer fekke lañuy ñaan waaye Baye Sayer nekkul jëmm joo xam ne ay mbiram day réer bari na na doomu aadama yu ko réere mbir waaye boo demee fa mu dëkk fa mu cosaanoo di nga xam ne Baye Sayer gaynde la ndax Baye Sayer dañ ne Birane Ndiabé maamam dañ ne Faly Ndiaye maam ndax dañ ne Omar ak sàmba sàmba Fall sanc Paalen jur maami Sayer Fall biir Paalen boo duggee Paalen Sele Diagne li nga xam Baye Sayer fu baax la bokk Ngalem Njabi fekk fa Omar mu jur Amadou Roqee Fall mi jur Sayer Fall Baye Sayer dafa bokk ak Sayer Fall wëlbatikuwaat doonub taalibe dañuy ñaan Fall Ndiaga fa tëdd yàlla na ko suñ borom fayal yàlla na ko Sayer Fall fekk si fa mu nekk ci baaxu yàlla mag yi yéen ñëpp nag ñu leen sant ba yi bàyyee nañ laa yàlla yonente beeg Serap Fall. noo ñaan di siyaare di ñaan seen taxawaay yàgg di ñaan yàlla xare ko ca àjjanay firdawsi wonale ko ak sëñ Abdou Sakkour <coughs> ba ma ñëwee ca kër ga wàcc kalasaan yàggul dara mu uti aaluki ma fekk fa mennum Aminta Cissé ñi ci des ñëpp fa lañ ma fekk mu béy fa dugub joo xam ne ba mu wootee mbojj ma rajo nationale lañ ko wax mu mel ni màggal gu toj ñépp ñëw góor ñi ay kuur ay yet dugub ja ba mu ko wooyee sëñ Abdou Sakor taalube yam ko yónnee ñëw dañoo xool sëñ Abdou Sakor jox ko bàyyi laat bàyyi laat ko ñu yóbbu dugub ja sol di sarse ko ci camion yóbbu bàyyi laat bindal ko téere boobu ca ndiggam lee xanaa wàcc liggéeya ko ca génne mu ne cant gi ma bind <coughs> di téere jox ma ko daal di koy ñaw takk ci ndiggam ku ne xam ne jàmbaari fàkk tëdd la joj sëñ Abdou Sakor sëñ Abdou Sakor soog koo jàllale Touba Linguère teg ko fa mu jiite fa nekk fa di jàmbaar ba wàcc liggéey a ko fa jële waaye ku ne xamoon na ne moom bëggutoon dara su bëggoon i kër ba tey Touba gi ay étage ma ngi fiy daw soxlawutoon dara lu dul liggéey jox sëñ Abdou Sakor kepp di ñaan nag nuy ñaan ñii mu fi bàyyi doom yeeg sët yi yàlla na taxawaay bi yàgg guddal seeni fan wéral seeni cër ñu sut kow fan di sa barke beeg wërsëg wi toog ba ñu di leen weer ak a were ci màgg laa wax barke sëñ Abdou Sakkour baaxu moom def jàmm rek ak xéewal moom ak njàmbaaram umput kenn bëggutoon dara it léppam sëñ Abdou Sakkour rek noonu la ko doxale woon baax jàmm ak xéewal. salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di nuyu. ñi fi teew ñëpp muy soppe yeeg sët doom yeeg àndandoo yi di leen ñaanal jàmm di wax ne ñu ngi ñëw ci bis bu am solo di bisu Baye Saér Fall ñëpp gën koo xam ci baay Mbit di jàmbaar yi Sëñ Tuubaa yi jàmbaar yi Cheikh Ibra ji jàmbaar yi Cheikh Abdou Sakor Fall ji waaw ñu bëgg daal euh, xam lenn ci moom rek waaw ñu jàmmaarloog nag benn leeram bu tudd Soxna Fatou Fall mu bëgg ñu leeral Baye Mbithie daal moom moo nekkoon kan ak nan la doon dundee eh, Cheikh du Sakor Fall jim nekkaloon ci kër Cheikh Ibra gi ak njabootu Cheikh Ibra gi ak njabootu Sëñ Touba gi ak ay taalibeem lañ bëggoon daal nga leeral ci lu bëree bëri bismillah Soxna Fatou. waaw ah, asalaamaaleykum maa ngi leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di sant Sëñ Touba Cheikh Ibra bu baax a baax. waaw Baye Saer Fall de kenn la woon koo xam ne ñu ak njabootam danoo yar ci yoonu Cheikh Ibra wan ñu loo xam ne ci Cheikh Ibra bi ñu demee ba gimmi leen koy doo a xam ndax lu mas ci àddunaam àddi la ko joxe lu ma mas am jox na ko Cheikh Abdou Sakkour njabootu Cheikh Abdou Sakkour gi nag fonkoon ko lool waaw teg ko nag foo xam ne rek yëbaluwuñu ko woon ak kenn waaw ndax féete woon na leen foo xam ne rek Cheikh Abdou Sakkour ak maam Cheikh rek moo féete woon waaw ñoom tamit bi fi jógee tamit ñu féete ak njabootam xam ne tànqam lu ñu dara ak njabootam tànqam lu ñuul dara ba fi san baay jógee ñoonu maye ñoonu mbuur ñu sëy ñoonu toppatoo ba nëgëni ci seen loxo génn ci kër gi waaw lu leen Baye Seer Fall lebaloon daal fay nañ ko ba wis ko Baye Seer Fall nag. dafa nekkoon démb joo xam ne mës ta wut alal Baye Serre Fall ba muy denc million booba million mooy milliard booba la doon denc ay million muy ay milliard soo ko masaana fekk mu toog danga naan ndax moom la am déet am xar xarsaan la daan sol waaw doo ko fekk danga des ko daan ñëw di ko laajte di ko laajte ba mu ñëw mu ne ko Baye Serre Fall laay laajte mu ne ko ah, man de maa ngi nii budul ñaar am mbubb mi ma solo tax nga xeeb ma sama tuur dafa àgg foo xam ne boo ñëwee boo ma tiimee da nga yaakaar ne du man man mii de la waaye alalam ju bari jooju xam-xam la ko yàlla mayoon mayoon ko doole mayoon ko fit li gën a jafe ci jamono ji moom la ko sun borom mayoon amoon na xam-xam amoon na doole amoon na fit nangoon naa joxe àddiya fonku sëriñam fonku sëriñam li may nekk nekk gone jamono yu nekkee Jolof dama daan fàttaliku bu sëñ Fallou mii ne day ñëw Touba li ngir fajar balaa sëñ Fallou yeewu togg yi muy togg dina ko togg yónnee balaa sëñ Fallou yeewu ndékki loolu dina dem guddi la guddi la ko sama yaay ñum daan togg guddi lan daan yeewu suqi booli ginaar yoo xam ne bu ñu xëyee bu ñu ko toggee balaa sëñ bee yeewu jamono sëñ Abdou Sakkoor nag ba ni fi sëñ Abdou Sakkoor bi ga sëñ Fallou mi nekk mu di ko def ba wu àdd yi mosu ko yemee rek leen bu fekkoon ne dafa nekkoon nit kuy dajale alal di wut alal daan wax man wutuma etaas bu ma fi baal doom lu muy doon doonnoo lu ma am jox naa ko suñu Abdou Sakkour kenn gisagul nag ku fii bëgg a jóge di joxe sa àdd yi mujjantal bariwut a gis bi mu fi jógee dafa milaas boppam joxe àdd yi lépp waa kër Cheikh Abdou Sakkour ñëpp jigéen góor kenn ku ne laa jox àdd yi doog a dee bi mu fi jóge tey bu fekkoon ne dafay bàyyi ay milliards kon doom yi tey ji duñu soxla dara waaye lu mu mas a am jox na ko Cheikh Abdou Sakkour daan bay ba màgg yëkkati ko jox ko dajale ab xaalis ba màgg yëkkati jox njabootu Cheikh Abdou Sakkour waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk leeram njabootam gi mu fi ba tam yàlla na ci yàlla teg loxo waaw loolu la ñuy ñaan na mu bëggoon Cheikh Ibra nag ñu ngi ñaan yàlla ñu tamit noonu la ñaan noonu lañ ko ñaan la ñaane yàlla fekki dee ci Cheikh Ibra njabootam gépp danoo dee ci Cheikh Ibra ndax ci loolu la ñu yar ci taalibe la nu yar dajalewul alal ndax bu dajaloon dajale alal tey jii këram gi boo fi ñëwee da fi fekk ay états yu fi baax bàyyi Sayer Fall ba muy téye ay million booba million mooy milliard xaalis bu dul jeex li may gone gone lépp dama ko daan fàttaliku nee naa leen doom fu mu nekk dara du ko saf dara waru ko yëngal dara waru poñi xitum àdduna waru ko yëngal ndax dafa amoon lu ne amoon na alal amoon nay otoom yoroon na xaalisam sama yaay mii li may guuf gàtt gàtt gàtt xam-xam dama daan gis xaas bu ko masaan a da koy pakete morso lan daan lal di ko ci takk bu ko takkee sama yaay yëkkati suuf lalam teg ko ci waaw dangay toog doo gis mu ñëw pakete ko ba màgg yónnee sëñ Fallou pakete ba màgg wala mu yónnee sëñ Abdou Sakkour loolu njabootu sëñ Abdou Sakkour gépp ñoo ko seede ñëpp nag góor ak jigéen mag ak ñu ngi leen di ñaanal nag yéen ñëpp di ñaanal tamit wane yii nga xam ne ñoo sombi lii waaw yàlla may leen loo leen ko mën di defe di ñaanal nag général muy Omar Seck di sët ci Baye Sayer waaw sëtaat la ndax yaay mooy sët waaye moom sëtaat la di say eh, di di sant Baye Sayer mu ngumba ndax ñoom tamit ñu nu jàppale ci bis bi la ndax mënoon nañ ñoo bàyyi bis bi te buñ ko bawoon tamit lun man den ko ci def def ko waaye dañu cee jàppale ba yéen bi oyof tooy tooy ci sunu kaw waaw ndax liñ ci war a def lépp def nañ ko lu mu def def rek ñoom def nañ la seen doole lan te war def lépp def nañ ko leen ñaanal fa nu bëgg àgg muy Omar Seck ak Baye Seyr ak gone yi na àndal ñëpp ak sët ak soppe yi ak turandoo yëpp ñu ngi leen di ñaanal fa nu bëgg a àgg yàlla nañ fa àgg yal na leen fa Cheikh Ibra Fall àggale waaw yàlla na leen fa Cheikh Ibra Fall àggale may ñu gudd fan ak wér gi yaram di leen ñaanal yéen ñi fi ñëw nag yàlla na ngeen yokk ba yëg ko waaw yàlla na ngeen yokk ba heure bi déwén kenn ku ne sentir sa bopp yëg ne yokk naa ci kàttanu yàlla yonte bi sëñ Tuubaa ak Seer Faal barke Seex Abdu Sakoor jërëjëf. asalaamaaleykum mbokki jullit yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di santaat bu baax a baax a baax ci sun bisub jàmbaar ji muy Baye Mbith ñëpp gën ko xam ci Baye Seer Faal Mbith ñu taw ak kenn ci njabootam yi muy sëñ Mourtala Fall mu dippee ko sëñ Mourtalaam Seex du Sakoor bokk ci njaboot gi. Eh, ñu da koy laaj daal moom baayam jooju nekkoon jàmbaar lool ci yoonu Sëñ Tuubaa wi ak Cheikh Ibra bi eh, nan la doon dundeek eh, ay taalibeem ak ak sëriñam boobu ak njabootu Sëñ Tuubaa ak njabootu Cheikh Ibra ak taalibe ak soppe yeeg yëpp rek bisimilah sëñ Mourtala Fall. bisimilah mina sant Serigne Touba Cheikh Fall ah du nuyu sëñ Falloum sëñ Sakor ak njabootu sëñ Sakor waaw ndax moom doo nekkul jëmm joo xamante ni kenn la ci kër sëñ Sakor. tegoon ko foo xamante ni xam naa ni moom bu fekkee am na ñu ko fa teg xam naa ni bëriwut dara àdduna it xam naa ni wax dëgg yàlla mos ko woon a ñor ndax daanaan faral di wax ni man lu ma am Sëriñ Tuubaa ci Rafal laa koy jox du fi bàyyi étage du fi bàyyi lu may doom di doon ku bëgg nag am li boo defee li ma def di nga am li te mooy liggéeyal Cheikh Rafal ak dundam yëpp it mu jeexal ko ci Cheikh fu mas a fanaan ndigal ko fa bàyyi fu masa a it ndigal ko fa ba jëloon sëñam Sakor Fall teg ko foo xamante ni loolu moom yaakaar naa njabootu Cheikh Fall gépp xam nañ ko lu mës a liggéey sëñ Sakor Fall la koy jox boole jur ay doom lu mu jurit sëñ Sakor la jox ah nekkoon jàmbaar joo xamante ni kenn naatable wu ko waxuma la Sénégal waaye bitim réew sax. xam naa foo tudd moom ñu njëkk a defar dañ lay xool ndax ndax yow kooku danga ko xam wala sa sa lan lay wax ndax maanaam may gi ko suñ borom ak oyof gi mu oyofoon ah, doon koo xamante ne ak baay Fall moom ak taalibi moom kenn naatabliwu ko ci yoon Baye damaa jël la sax may gi nga xam ne suñu borom defoon na ko ci moom nga xamante ni loolu moom wër na àdduna képp waaye fi mu bokk rek ak nga xamante ni li leen suñu borom cërale te loolu lépp mu wëlbati defaat ko ci taalibe ak euh, oyof goo xamante ni maanaam ni mu oyofee woon rek nga xamante ni. nit daan na ñëw jóge fu sori ci réew yi ñëw ba egg si nuyoo moom ni ko man kat ku ñax Baye Seer mbii laay laaj waaye danaan ko waxal li la tax a jóg ma defal la ko nga dem li ngay wër nekkul ci yére daan na ci dënn la nekk waaw ah, dund na ba nu mu fi jógee ak mbayam de yàlla dogal ne mustam mbay lekk ko ba ni mu fi jugee ak mbayam li mu daan bay musta dugg gémmiñ daan na bay ba mu ñor bon sax laa def bu jamono bon bon lañ daan dagg bu jëlee bon bi bon bi lay jël daw nangoo laal sax waaye bon lay def ñu jël bon bi bon bi laa la ñëw di ko jox sëñ bi sàkko ba dugub ji mujjee bay bu ko sëñ bi sàkko di toxalee aliki googu dugub jooju mu mujjee bàyyi na fa dugub joo xam dugub jooju sëñ Abdoulaat bu ñu ko joxee sëñ Abdou Sakho sëñ sëñ Sakho Fall sëñ Abdoulaat la ko jox korog sëñ Abdoulaat da moo joxe ndigal ne dugub jooju Cheikh Fall jox sëñ Sakho te jox ma ko dafa bëgg ñu dem ñu ñu ñu ñu bojji ji ko korog sëñ Abdoulaat moo def communiqué boobu korog bu ko bojjee ba noppi bañ koy indee koroog mooy am na si téeram yooyu muy takk téere boobu xànjar téere xànjar yooyu ci téeri baaram yooyu xànjar boobu lettre ba ko sëñ Abdoulaye Mbacke bind lam ko wax ba mu ko ja liiree ba noppi dafa lam lettre ba def ko téere xànjar def ko ci téere baaram yooyu mooy koo xamante ni wax dëgg yàlla de ah, euh, na ay góor yàlla waxuma la si waaye dimbali na ay góor yàlla dimbali na ay góor yàlla ku yàlla dimbali woon la ci xeetu teraangay àdduna ci xeetu xam-xam waaye mosoo ñëw ba xanaa da koy dégg ci moom rek waaye doo ñëw boo boo ko mos a gis doo ñëw boo fekkee ni bu ñu la waxul moom la doo xam ci moom ngir oyof bëggoon sëñ Abdou Sakor Fall lool ba yemal ko kenn ak njabootam fu ko sëñ Moussa sëñ Abdou Sakor Fall teg fa lay toog bu fa jógee ndigal ko fa jëlee ba Touba Linguère gii nga ko sëñ sëñ Abdou Sakor monsieur mu jee yóbbu korog dana dana ko bu fi jugee de sama ru sama ruwa sama ruwa fi waaye fekk maa ngi nokki de sama du ma fi xanaa sama ruwa wadd la ko mooy Touba te foofu la foofu la wàccee liggéey. kon nag li ñu war mooy ñun ñu jéem a góorgóorlu ah te jéem a aw si tànkam jéem roy fam lam daan def ñu jim koo roy ci ak taalibe ak nangoo jëfee ndigal ak nangoo doon lim ñu bàyyi muy ay Baay Faal te moom la ñu fas yéene doon ba faw dara duñ ci jële waaw fi ñu bàyyi ci kër Sëñ Sagoor gii de bu soobee yàlla fi la ñuy fas yéene suñu roy yi de fa la ñuy des di ñaanal njabootum gépp nag yàlla na leen yàlla teg loxo puus leen ak sët yeeg jarbaat yeeg ñëpp wax dëgg yàlla maa ngi ñaanal ñëpp suñ borom yëkkati leen teg leen fu yàq agut yokk seen mën-mën ak kàttan jox leen xéewal yi yaatu yoo xamante ni da ngeen ba yéen seen doom di ko def ak seen i ak seen sët suñ mën na ko yàlla nañ ko defal ci barkeb Cheikh Abdou Sakor Fall ñu ñaanal ñëpp nag yàlla nañu yàlla defal taw féex bañ teewaat fi déwén kenn bañ a manqué te suñ borom may ñu bu déwén nag jàmm xéewal yi ñu fi def lu lu ko ëpp ñu def ko dañ bokk ak ñëpp nag barkeb Cheikh Abdou Sakor Fall. ñëpp rek lu nuyu jullit yëpp ak murit yëpp rek ci bisu màgg bi muy bisu Baye Sayer Fall ñëpp xam nga xam ci Baye Sayer Fall bi jàpp jàmbaari Cheikh Abdou Sakor Fall ji ñu toogoon nag ay magi doon dund ak moom bu baax boobu muy Cheikh Abdou Sakor Fall ñu toog cee kenn muy Baye Ousmane moom nag day faral sax di yëngu ci turu yàlla wi mu ñu jox ko rek mu barkeelu bisimilah door cee dugal ay kàddu yu seere yu ñu mën a xam ci góor gi rek. auzu billahi mina seytaani rajim la hawla wala quwata illa billahi alal azim parce que yéen saafaru ci kàttanu yàlla ak màggu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Modou Fallou Fall la ilaha la ilaha illallah maam Seexu Ibra Faal maam Ibrahima lamp borom baax laa ilaaha illallaah laa ilaha faal illallah ndimbal ak yërmande saayir ma baat neen aaju fajoog mbir mu jub defar gu yeesu yàqule ba faawu ci kàttanu yàlla ak màgg yonent bi sallallahu alayhi wa lépp lu na ma jàpp ba nu fàtte yàlla yàlla na ko yàlla jàpp ba mu fàttu ni jaajëf faal maa sant suñu borom jërëjëf Baye Ousmane yàlla na baat bi gën a wér rek nga yàgg suñu kanam loolu te wér barkeb Cheikh Abdou ñu bëggoon daal ay kàddu yu seede rek ci ki nga xam si ni moo di bàyyi Saér Fall Mbith ñëpp gën ko xam ak Cheikh Abdou Sakkoor yéen ngeen nekk ci kër Cheikh Abdou Sakkoor gi keppaar ak Cheikh Abdou Sakkoor gi waaw nu mu doon dundee ak Cheikh Abdou daal ak taalibe yeeg soppe yeeg ñëpp rek ñu bañ cee bëgg cee taataan dara rek ngir bégalee ko soppe yi nga xam ne dañ koo sopp xamuñu ko te bari na loolu ñu ko sopp xamuñu ko bisimilah. ki leen leen fekk ci moom. moo nu juddulu man moog sama waajur benn lañu woon. ba ba ba ba ba mosuñu koo xam daana ni ak taalibe rek lu mu am jox ko sëñ ab sàkkoor ndax bu doon bu doon lu am tayee ko dey kon bu buy dem bu fi tey bu fi jógee barab mën naa mel ne bokkut ak nii waaye lu ma saaf rek sëñ bi sàkkoor la ko jox ba mu nekk àllu keeg fu mu mën a nekk ak nekk ci ci ci ci dem bu yàgg ba mu génnoon réew mi ba léegi fu mu fu ma sa nekk rek ci sëñ bi sàkkoor la nekk loolu lu amee sëñ bi sàkkoor la ko jox noonu loolu loolu judd fekk ko ci moom ba bi ko suñu di ko jëlee àll di ko yóbbu Touba Linguère ca jox jamono ak booba kër ni mu diise mu joxe ñaari fas yoo xam bu doon bu doon tey fas bu na yenn téeméeri junni jox ko suñu sàkko ak saxum fukk ba noppi doo ko boobee nag waa këram wuteeg ñoom Touba Linguère sa doo ko sañc sañc doo ko door door sañc nag mu ñaari at Touba Linguère kon xam nga ni kooku ak taalibe bi rek ko ñor tey fas it sëñ ma sa suñu sàkko la ko joxoon Abdou Karim Ndiaye ko jëlee wut ak Abdou Sakor Fall sama ñoo ñoo war a fas àll yóbbu ko Touba Linguère muy fas yu xaari bu doon léegi fas ku ne jënd téeméer junni bañ ta bañ ba ne tàmm sanc bay dañu tàmbale ba teen ba ñu woote woote nu ñuy defa gaskat yi dañ sañu bàyyi maa ak ñoom maa ngi ne añ ak reer ak ndékki ba ñu fi jógee noonu la ko doon defee soxna yii ci kër gi ñoo ñoo daan ku ci ku ci ku sabis mos na ñëw yaa leen tibbal te nee na leen ku leen tibbal nañ nañ desal ku reggatee desal soxna eh, yaay sagar mi ak yaay joor ak yaay ndey jaay ñoom ñoom ñoo boobu ñoo fa nekk ak ko ñuy wax euh, kii euh, Ami Cissé mm-hmm. ñoom la fa nekkaloon waaye añ beeg reer bi du manqué boole lu am jox suñu sa koor mm-hmm. loola lool loolu bokk bokk li nga xam ci moom mm-hmm. këram gi bi fi dikkee bi mu koy tàmbali sama sama bàyyi lay mu def ko mu def ko muy doomi bàyyam dama naa wax man yow sa bàyyi laa loolu yu bari xam nañ ko loolu euh, soxna yi xam nañ xam nañ sama diggante moom bu baax ñu bari sax xam ñu ko waaye soxna ñu xam nañ ko moom soxna doom yi ñu dox mbayee Fall keroog bi ne la yooyu fii guddi fekk sama baay dem Daaru sa sañ bàyyi sa weer dañuy mbaye Fall kenn du ko laal sama Fall ñëwul sama baay sama baay lañ la lañ jëli oto ba booy Fall moo ko yële Daaru mu andi ko ba mu dikkee maanaam maanaam dafa wàccaa liggéey bañ ñu kom moom ba ñu kii waaye bañ sax sama baay la sant moo moo dindi bañ ku wala réewtoo nag moom la man mi def mu def ma doom ba ma nekk Touba la ngeen lu ma sa soxla ma demee ca moom rek lool lool la màggal ak lu mu mën a doon rek ma demee ci moom loolu la fajoon te ni ak may noonu lay def ñëpp nag xanaa ku xaw ku ko waxul soxlaam rek eh! xanaa ko waxul soxlaam rek waaye noonu rek la ma sa nekk lu ma sa am daal jox na ko jox na sañu sëñ Sakkoor sëñ Sakkoor dong ko ñor nag dara leen ñorul ko ak taalibe yi ñim ñi fi di ay doomu def na leen i doom ñi fi di ay jarbaat def leen ay jarbaat ñi fi di ay moroom def leen ay moroom loolu daal loolu xam ci bàyyi sa yar Eh, ci taalibe yi nekkoon nag euh, ci Cheikh Abdou Sakor ak euh, jàmbaaram jooju di Baye Sayer Fall waaw bu ñu mënee wax ci diggante Cheikh Abdou Sakor ak Baye Sayer rek ak Baye Sayer daal nan la doon dundee bisimilah. Euh, asalaamaaleykum ñu di nuyu di ah, ak Baye Sayer de naqariwu wax ci liñ fekkee. ndax moom sëñ sàkku rek la tegoon ci bëtam teg ko ci kanamam lu mu digal ci lay nekk lu mu tere ko doo ko ci gis te it maanaam fu ko sëñ sàkku yóbbu fa la nekk ba gisatu ko man mi yàgg na maa wax buñ doyee nawet amut mu ne ma carte bu sonn nañ wutib teg nit ku gëm yàlla nit ku nangu ndogal la ku ñeme addi la moom xam naa ko ci moom ku gëm sëñ bi la itam comme ni ko Cheikh rek bu ñu wax kenn ku ne benn baat boobu ngay wax ko yéene waaw kenn ku ne xam nga ko ci moom ñun ñëpp xam nañ ko ci moom même bu boo boo dee boo ñëwee ci moom dana la naabaat ba nga xam ne ba nga delsi waaw doon koo xam ne nag doon ak taalibe doon as gor nangoo liggéey tey muñ loolu la ci la ci lañ nekkoon ak moom yar nekk ci ak njabootam ñun ñëpp ci suñ kanam lañ juddoo kon ñu ngi leen siyaar yàlla na ko yàlla te teel ak sëñ Ibou Sakkour te fay ko jëfam ci bakk sëñ Tuubaa man maag Ousmane Diaw mii ak Adama kan ak Aliou njaay ak sëñ kan Kane 74 nawet nañ ko lëy ban fa ban fa nekkee toog na fa moom ba mu jàgg mu aajo woonu ku ñuy wax Sele Jang moo fa jële ci aw fasam mu ñuy wax njool ci liggéey bu mu doon def ca kër Fafal Jang ba mu nu fa jëlee ba mu dikkee dañuy léegi liggéey bi mat na ndax gis naa samay doom gis naa waa kër sëñ Sakkoor Fall bu ñëpp demoon ni li ma bëgg danañu ko def ñu yenn foofu boobu at moom day toolu gerte bu ndaw benn kilomètre bu carré la toolu gerte bu ndaw ba benn kilomètre bu carré la ban fay ñëw fekk nan lépp def na def na ay ay naaf yu ñuy bàcc dugub ji ngar nañ ko ngar yi egg na fii ak kër sëñ Sakkoor guddaay bi mat na ko ngar li mat na lool. fekk nañ fa loola liggéey boobu itam ban ca nekkee ba ca ngoon dani da ngeen a waroon a fanaan waaye yàlla dogal na nunu cee naka ca jamono jooja ca la ñëw fii bëri ñibbi si leetar ba mu doon jébbalee gerte yooyu tool bu ndaw ba ak bu mag ba ak dugub ja daanaka moo ngi nu jiitle dugub jooja bañ cay dem ak ak gerte ga di ko jëli dani sëñ bi jébbal naa lépp sëñ bi wax sëñ bi sakkur dani sëñ bi sakkur lépp noppi na ñëw jël si ko dañu dañu ne yaa ma gay wàdd ma gay mu ne ak Omar Ndiaye bu ngeen demee kat ngooñ moom bu leen ci am nag lu ñu doon wax nañ ko bàyyi ak jur ko ko doon liggéey la ci des nag na ngeen taxaw ba ñu bojj ko ba pare dugub ja ngeen boole ko ak loola jébbali seen blaat loolu man fekke naa ko ay yoon yu mu ko def fekke naa itam mu jógee Ndakaaru ñëw fii yor ñaari saak bii saak bu mag la 3 millions ci nekk bu mag bi bi ci des def na ci lu mat ay million bu topp. mu beraate ko jox ko Ngoné Fall ko bu ndaw bii dañ koy yóbbu ca kër ga mu xëy toog fii ci buntu kër bi booba kër sëñ Sakoor gee fee amul sàkket diggante bu mu sàkket mu seen sëñ bi toog ca màngo ga mu siggi di ko xool keroog dafa solo ba fees dell ba mu siggee xool sëñ bi dañoo seen muy futti futti futti grand bu buy ñaari grand bu buy yim soloon teg ba defee benn fax ya daa def ne Ngoné Fall mu ne ne ko borom dara jodu soli dara xoolal sama sang bu baax ba fële daal ni ko ngoone dawal andi ma la ma la joxoon ngoone dem indi ko andi benn saak bu mag ba mu waxoon mu dem jébbali ko ba mu jébbalee saak booba ba ngoone ba ngoone di delsiwaat diggante bi aawaat na ci ni ko demal jëli ba ma doon jot waa kër ga yóbbu sa yóbbul sa ñëpp sa koor faal nu dem loxoy kese bu nu jógee yalwaan essence booba ñaari oto laa àndal bu nu jógee yalwaan essence doog a dem jolof yooyu loolu fekkee naa ko ci ak yu bari yu mu mën a fekkee te mën koo wax waaye foofu nag doy naa yem xam naa ne daal gaynde la moom te sa ñëpp sa rek la bëgg sa ñëpp sa dara lii Cheikh Fall wax ni bu doon koy dajale alal la na ni kenn mënu koo ba tey miraas am mat a gudd waaye dajale wu daal luñ ko jox rek mu jox sëñ Abdou Sakor la fi nekkee woon lu mu am rek jox sëñ Abdou Sakor bay jox ko waaw noor yi noor yi dikk jox ko lu des mu dem yalwaani li muy dundalee ci bàkkanam ab yalwaan lay doon jolof la koy lijjantee waaye amoon na wego waay woo xam ne nit fu mu taxaw ci jolof fu mu fu mu taxaw rek bu ne nangam laa bëgg loola day daal di sotti fi saasa loolu moom sunu borom dogaloon na ko ci jëmmam moom lu bari daal mën nañ ko ci wax waaye foofu la ñu ciy yóbbu daal. Cheikh Ibrahima Fall Lamp Mouridine. laa ilaaha illallah. laa ilaaha laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faal laa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 Mustafa laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faal Mustafa laa ilaaha illallah. ok jërëjëfati Serigne Cheikh Fall Jëmb jërëjëfati Serigne Cheikh Fall Jëmb jërëjëfati Serigne Cheikh Fall Jëmb yàlla na yàlla dolli leeram ak euh, Amdi Fall moom Serigne Modou Fall Menda yàlla yaa ko fi lool naal ba naal lim naa liggéeyu baax jamono fu ñu ko bëggee barke Cheikh Ibrahima di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki murid mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaar bu baax mel na tey ji ñu ngi waxe fii ci kër Baye Mbij Baye Seer Fall ñu gën ko ci Baye Mbij Fall mu sëñ di màggal gi koy defal eh, ci juróom-ñaari fan yu ne ci weeru digg di ko ci fàttaliku mu nekkoon njàmbaar joo xam ne kenn du nattale ab liggéeyam ci kër Cheikh Rafal eh, nekkoon gaynde goo xam ne lu si Abdou Sakkoor mos a bëgg def na ko Touba Linguère fee sëñ Abdou Sakor newoon ci Touba Linguère ñëpp xam nañ ko Baye Mbéj kooku nag di bisam bii di bis boo xam ne bisu ñaan la bisu fàttaliku la bisu tudd yàlla la mu mel ne loo waral mbokk yëpp teew fi waa kër Baye Mbéj ñëpp a ngi fi soo loo ko tàmbalee ca taaw ba ba ci ki ci gën a nekk tu tànk di siyaare bu baax it ñu àndal bokk ci ñi njabootu Baye Mbéj gi suñu Abo Fall. Eh, di seetu Baye Mbicc moom mi ngi nii toog sëñ Mbakke Ndooy bokk ñu watu Baye Mbicc gi ak sëñ Moussa Mbaye ñëpp rek di ay soppe day xarit yoo xam te ni Baye Mbicc jaral na leen lu ne ndax Baye Mbicc lim ju lim am ci njaboot sax eh, day wax ne sopp yi ñoo gën a bëgg loolu di tawfeex joo xam ne nag Cheikh Fall ko defal te dara mayu ko lu liggéeyal Cheikh Fall xam naa li ci mat a wax lépp nag dañ koy bàyyee kilifa yi ko war a wax rek ñun ay sëtaat lañ lañ di ko ñaanal suñu moom dolli leeram te taas ñu ci barkeem. liñ di ñaan liggéeyam bi Cheikh Rafal yokk ko mu gën a jog ca kaw ndax kat moom yéenam jëpp moo nekkoon bu fi bàyyi ko sax liggéey Cheikh Rafal bi di gën a yokk ci këram kon nag loolu ñu ci soññ nag mbooleem ku sëtoo ci Baye Mbéthio baa ngay doomam baa ngay sëtam baa ngay sëtaatam ñu ngi soññ ci liggéey bii ñu gën cee taxaw lam bëggoon ci kër ab Sëñ Sakkoor bëgg ko ci kër Cheikh Rafal ñu taxaw ca te fas yéene koo def na ko bëggee woon ci barke Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi soñ ñëpp may siyaar baax suñu Cheikh Fall ngumba kenn ci njabootu Baye Mbijji di sëtam di di di di di di di xaritam mu tudde ko ko boppam maa ngi koy siyaar baax di siyaar son Fat Fall ak njabootu Baye Mbij yëpp si Moutala Fall xit si Moutala Fall euh, Mbij moom it ak euh, suñu maam ak Baye Sakk ak ñëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ ñenn soxna Aïda Fall soxna Daba Ndiaye ñëpp rek ñëpp rek képp koy njabootu Baye Mbij daal ñu ngi lay siyaar di la ñaal ak soxna yi xam ni ñoo nekkoon ak bàyyi bi doon liggéeyal yàlla euh, ñëpp ñu ngi leen di siyaar di baalu àq ñëpp nag di baalu àq ñëpp di ñaan ñëpp jàmm tawfiix ak Cheikh Ibra Fall di ñaan yu teefe ay déwén déwén di wax déwén gu fi di siyaar ak waa asalaami di siyaar bu baax waa Lamp Fall si Aliou Badara Ndiim si Mamour Ndaw ñëpp mu ngi leen di siyaar bu baax suñ Fallou si la ñu ngi koy siyaar bu baax di ñaan ñëpp jàmm di ñaan ci barki bay mbij nga xam ne ku mu bëgg masaana ku mu masaana bëgg a fal euh, mi bala fetale mi lay dóor barkeb Cheikh Fall la di dóor lu mu la ca wax kenn du ko dindi daan wax ne su ma defee wala yëngu ma ma ci yem ku du yàlla mënu koo dindi ñu ngi ñaan nag ca defam googu mu defe ñu lu dul dañ ci barkeb Cheikh daana wax it bis bu ma fi bàyyi koo moom dafa diir sama tur yi dala jógaat ca kaw euh, ñu ngi ñaan nag turam woowoo da jógaat ca kaw ba adduna gépp day xamaat Baye Mbéthio mooy kan ak kan ki lan liggéey Cheikh Fall yàlla bokk ñoo ko yëkkati ñu bàkk Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf sunu xol sedd na jërëjëfati. ak di leen sant ki nga xam ne bii. jëmm ji nga xam tey jii. jëmm ji nga xam tey jii. ñu koy wax Baye Sayer Fall. ñu di ko wax Baye Sayer Fall. te fi nekk ñëpp di njabootam. te ñi fi nekk ñëpp di njabootam. ñii ay doomam lañ. ñii ay doomam lañ. ñii di sëtam. ñii ay sëtam lañ. ñii di jarbaatam. ñii di ay jarbaatam. Eh, dara lépp ci mbokk la. nee na lépp daal ci mbokk gi la. di mbokk goo xam ne nag ñoo bokk bokk sëñ Touba. nee di mbokk bokk bokk sëñ Touba. bokk Seera Fall. bokk Seera Fall. moo ci dàq nag. nee mbokk yëpp nag loolu moo ci dàq. mbokk goo xam ne ñi nga bokkal ñëpp yéen a bokk sëñ bi. nee mbokk gi nga xam ne yéen a bokk sëñ bi. ndax ma waral lii. ndax nee ma waral lii. ndax xër gi xamoon sëñ bi. ndax nee xër gi mu xëroon ci sëñ bi. bëgg gi bëggoon sëñ Sakkoor Fall. nee bëgg gi bëggoon sëñ Sakkoor Fall. yemale ko lenn. nee yemale ko lenn ah fu mu gis sëñ bi rek. nee na fu mu gis sëñ bi rek. lu mu am jox na ko ko. nee na lu mu mas am rek jox na ko. fu ko bu wooyee itam. nee fu ko sëñ bu wooyee itam. si na ko fa. nee ko fa. su ko dégg itam. nee fu mu koy woo sax fekk si na ko fa. nee du ko xaar sax mu ne eh, lu mu yor nag moom. nee lu mu moom. jox na ko addiya. jox na ko addiya. bàyyi lu yorul tabaxul deful dara lu mu yor rek tabaxul lu mas jox rek sëñ bi sakko la ko jox nee lu mas am rek sëñ la ko jox moo doon léppam ma neen moo doon léppam ba feew mi dem Touba Linguère at moom fay dem ne feew mu nekk Touba Linguère at da ko ne nanga nanga ma da ko nanga ma fa fekk dafa bëggoon sax mu jiitu ci ko fa ne daa bëggoon sax mu jiitu fa te boobu àlluke fa dikkal ne leen leen lu ne a faa dikkal waaye keroog dégg ndigal waaye ne nekk fa nekk fa soldaaram ci gépp fànn dib kon nag ne kon nag am na ngërëmu sëñ Sakor. nee na am na ngërëmal sëñ Sakor. am na ngërëmal Seera ndax sëñ Sakor mooy mooy Seera waaw kon nag yéen ñi bu ngeen di weetee ngeen di mbokkam. nee kon nag yéen ñi bu ngeen di ay mbokkam. am na ñoo xam ne ay soppeem lañ ndax dañ koy dégg rek. nee na am na bi. nee am na ñoo xam ne ay soppeem dañ ko dégg rek ñoom nekkoon sëñ bi ah bëgg bëggoon sëñ bi. nee bëgg gi bëggoon sëñ bi rek. tax ñu ñu fonk ba tax ñu bi. bëgg démb rek am na ku ne Dakar yi ma laaj ne dafa bëgg gëstu mbirum Mbaye Sayer Fall. nee na ku nekkoon Dakar eh, bi. nee ndax bëgg gi bëgg sëñ bi rek. daan doxee sëñ bi. ñu bi rek. loolu tax ñu bëgg eh, gëstu mbiram ba ak fi mu dëkkoon yëpp ñu mën faa dem. nee moo tax ñu doon gëstu mbiram te dëkkoon yëpp nga faa dem mais loolu bu ngeen dikkee sawar nañu lool ba ne kon ne mu leen bu ngeen dikkee loolu nag sawar nañu lool lu leen ci wax rek am na lu leen ci wax rek am na lu ci ci bàyyi digg kenn mënu leen a wax lépp ne kenn mënu leen a wax lépp li leen ci ñamal rek ne leen ci ñamal nag moo di fañ mën a fañ mën a yem nee na lu ci ñamal nag mooy fi mën a yem muy la seerafaal bëgg ne la seerafaal bëgg ci yoon wi ci yoon wi digal ak jafe ak jafe ci loolu rek la nekkoon loolu lañ di maña waaye la ci biir sëñ bi yëpp diggam moom nag mënu suñu am na koo xam ne mënu suñu ko wax neexuta woon bu ñu wax fii ba ngoon ah loolu du jeex kon nag la ci am solo rek mooy li ci ne ci taalibe muy nu topp taalibe ah na ci ndigal tawat na koy tere loolu rek la mooy am solo ci taalibe jëfe ndigal loo am jox sëñ bi loo xam wax ko loo xam wax ko. loolu rek mooy yoon wi. ne mooy yoon wi. mooy lii ngeen def nag rek ah, ne lii ngeen def nag ñam. togg aw ñam. ah bernde. kaamil. defal koy ah, am ngeen yow ngeen jëbal ko sëñ bi. ngeen li ngeen ko ca barab bee ñu xam ne fa xamoon rek mooy lee. ne ko foofa. ne ñam yóbbu ko foofa defal nañ ko bëgg. ko lam bëgg ndax moom lii la bëgg. ne kon lii la bëggoon. nit ki boo ko bëggee eh, ne ca ca dimbali ko. ne nit ki boo ko bëggee dimbali. ah na ci ndigalam. ndigalam nga la mu bëggoon. di ko def. nga di ko nga bàyyi ko. nga bàyyi a ngi ci bëggam. ne nag yàlla na sëñ Tuubaa seera. ne yàlla ah si ab sakko Fall bi ah, liggéeyal mu dugal leen ci ci jëfam joojee. dugal leen ci jëfam ah, leen ci barke boobee. ba li ngeen bëgg yëpp ngeen man ko am. waaw ah, li ngeen ngeen am xéwal yu bari. ngeen am xéwal yu bari. ak wér. ak wér. ak gudd fan. ak gudd fan. kon noonu mu doon liggéey ci yoon wi. liggéey ngeen mën ko bu baax ngeen mën a ngi ci yoon wi nag. yàlla bu leen dara dogale. nee yàlla bu leen dara dog. yàlla na ngeen àgg yo rëkk ni aw yoon. ni ngeen àgg rëkk ni yoon. jërë kontaan nañ ci baax. sant nañ ci bu baax a baax lii moom sawar naa ci lool wax yàlla. lii sawar mbirum Baye Seer moom kenn ku ne xam am nga am nga am nga ci waxtaan. am nga ci waxtaan. kër gi moom képp ko ko rek. nee kër gi képp ko wax rek. lu mën a wax ci Baye Seer lu a te lépp nag rafet lu rafet la rafet kon nag sant nañ leen bu baax kon nag waaw yéen njaboot gi li ngeen def def rafet na lool li ngeen def waaw sant nañ bu baax a baax baax a baax waaw kii ma nga xam ne Seck eh, doom ji nga xam ne moo fi nekk ak ñoom sekk mi ñu Seydina Seck Seydina Seck ñu ngi koy sant di gërëm baax na gërëm lii leen leen def ñoo forme daayira bi kër Seera Fall bi bi na ci kër Seera Fall ci kër Seera liggéey si Seera Fall kon nag bu ànd ak ci liggéey boobu kon bu ànd ak ci ah, koy sant baax a baax ah, ndax loolu moom amul yemukaay liggéey Seera Fall foo ko defee ci kër foo ko defee amul yemukaay waaw ndax lépp borom gis na ko kon jërë ngeen jëf ñu sant di gërëm baax a baax